متين الله الحمد لله الذي لم يجعل رزقي في يد غيره اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه salaamaaleykum wa rahmatullah jumaa ji bu doon wàccee kaamil ñu ne kon ñu ngi ci suratu baqara maanaam ajjuma insha allahu rabbi ci kattan sunu borom dinañ ci julli juma insha allahu rabbi jumaa ji daanaka yegg na ñu ngi nii nag ci dernier réglage yi moquette nañ jumaa ji lamp yi tàkk na lisir yi leer na tey ñu ngi moquette fi maanaam jigéen ñi di jullee fa la ñuy moquette tey incha allahu rabbi ci kàttan suñu borom di remercier nag képp ku ci dugal xaalisam waaw képp ku dugal dërëmam rek ci jumaa ji maa ngi lay remercier mënuma lim bu ma limee damay juum ñi ci jàpp bari na sama partenaire ak sama sponsor yi maa ngi leen di remercier di remercier képp ci dugal dërëmam képp ci dugal dërëmam rek waxtu buñ ñu fi julli yàlla ci yàlla fay yiw ci kàttan suñu borom dinaa nag def liste de remerciement ci kanam incha allahu rabi xam naa fii ak suba wala gannaaw ndax neex na nit ñi seen xaalis jox la ko ko ci jumaa ji waaye neex na tamit nga tudd leen ci jumaa ji tamit ñu xam ne seen xaalis fii la dugg incha allahu rabi ci kàttan suñu borom jeudi dinaa def benn liste de remerciement incha allah. salaamaaleykum nag may remercier ñëpp ñu jàppoon ci liggéey bi ki ci gën a tuutile ba ki joxe million maa ngi lay remercier ndax mënumaa tudd bu ma limee rek damay juum di remercier tamit ñi nga xam ne amoon nañu yéene seen xaalis dugg ci jumaa ji te egsiwul yàlla na yàlla defal jàmm yàlla fay leen yiw ci barke si Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci barke bërëb bu tedd bi ma ne ci barke sunu borom yàlla na ñëpp am jàmm kontaan naa kontaan naa sama xol seet na torop ci yéen sama waa koñ fier nañ ci man te sama waa koñ bu ñu fier ci man yéen ñi ma dimbali ak yéen ñi ma jàppale ci jumaa ji ba jumaa ji am forme nii tey yéen a tax suñu waa koñ fier ci man yàlla na leen yàlla defal jàmm ci barke Seydina maa wax barke alxuraanu karim xam ne lii fierté la ci parcelle fierté la ci ju mel nii décoré ko finir ko ba nit ñi war cee jul bi tamit xam ne moo doon defar moquette bi maa lay remercier di la gërëm suma séeréer bi yàlla na defal jàmm tey jii di ñaaxarañ loo ñaa ñi ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay Cheikh di leen ñaanal di leen ziar ci ajuma ji di rafetlu tamit rafetaay bi ngeen di rafetlu teew bi ngeen teew ci inauguration jumaa ji tey ñu ko doon liggéeyal sunu borom moo amoon ci ay partenaires ak ay sponsors yoo xam ne jàpp nañ ci liggéey bi ñiy joxe cent franc orange money ba un million li ci gën a mag ñoom ñëpp maa ne di ñaanal di leen ñaanal yiw di leen ñaanal yàlla na yàlla gis li ñu def ci jumaa ji waxtu bu ñu julli jumaa ji rek yàlla na ci yàlla fay yiw ñu ci dugal seen dërëm ak ñu doon waaj a egsi ak ñi amoon yéene egsi ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla fay ci kàttan suñu borom yal na leen yàlla fay si kàttan suñu borom ni ñu koy waxee lu sotti am borom ba ñu dooree liggéey bi ak léegi yàgg na mais yaakaar naa ni suñu suñu borom dugalee sa liggéey bi sotti na lan ngay sant ci loolu. waaw liggéey ko borom bi di jaarale yàlla ma noonu bu ci ñaax ndax booy ay lañ sama booy waa ko ñu liggéey nañ ko 11 mois daaneel dal bi changé ko def décoration ba def poto yu doore yi man finition laa def rek man moquette lañ ma woowee woon ma jóge ci moquette def defar morgue bi jóge morgue bi carrelé carrelé man awma mais am naa ay nit ñu mën a defar waaw ñu gis ni ay kilifa jóge neen fu nekk ñëw ci lii nga xamante ni mooy ubbite jumaa gi naam nee nga da ngaa àggali rek waaye am na sa mag lu mu wax lu sotti am borom ñaani mel ba lum laal yàlla teg ci loxo. waaw loolu moom suñu borom la rek li ma suñu borom la rek fonk ku ma fonk samay wayjur di leen teral ba lu ma bokk ñoo xam naa loolu la ma yàlla di suturaale ba lu ma laal mu yàlla def ci yàlla def ci xéwal. macha allah alhamdulilah kon li nga wax leer yi li wax leer kàddu gi nga xamante ni moom nga ndem yow Sénégal da ngay wax ñu lay déglu lu mu bon bon ñaari nit lan nga leen di soññaatee ak ci li ñu nekk. li may soññ nit ñi mooy di remercier di remercier suma sëriñ bi jóge ba Medina na ñu naan ko din Cissé di ibn imam Assane Cissé di doom ci imam Assane Cissé loolu doon na kàddan ku sa baay imam Assane Cissé. Mm-hmm. Alaoudine Cissé di frère ci Imdi di frère di euh, sœur ci euh, di sœur ci Zeyda Zeyda Roq euh, ki Zeyda Roqe Cissé bi ma fekkee woon Chicago. may ñaanal waa pays bi uddu cheikh ak min di cheikh yi waa xatu ibrahimiya képp kuy taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim ak képp kuy jullit di leen ñaanal jàmm di remercier ñëpp ñu jàppoon ci liggéey jumaa ji ndax man mënumaa yeggali jumaa nee naa leen jumaa këll mën na ko tàmbali mais mënu koo yeggali jumaa financement ak partenaire moo koy yeggali ak ak euh, sponsor waaw ñi ci dugaloon seen xaalis ñëpp nag maa leen di remercier nag mënumaa li bu ma seen xaalis bari na lool ñëpp maa leen di gërëm di leen prochaine destination nag maa ngi jëm ci école élémentaire bi ma soxla ma poste politique soxla ma poste chef de quartier soxla ma poste mairie soxla ma lenn ci wàllum politique man politique damay def rek te yàlla tax teewal sa gox soo ko dox mooy sama concept. mais ñaar daan dina am lu ñu gis. Hmm. ku ci hmm. macha allah. Hmm. koo ci koo ci a am. yaa ngi kër gu rafet. wala ñaar. Hmm. seen kër toll. Hmm. maa ngi yëkkati woo ba ca kaw. Hmm. attaqué woo kër gi waaw jumaa ji dafa nekk néegu yàlla rek te fayum yàlla moo gën a gaaw fayum doomu aadama moo tax ma attaqué jumaa ji rek te jumaa jooju ma attaqué dinaa ci attaqué leneen lu lul jumaa incha allah rabi ci kattan suñu borom leneen dina ñëw yàlla na yàlla fay yiw rek yàlla lañ ci doon wut rek wuñ ci woon dara yàlla ñu waaw yàlla na doon yàlla kese nag incha allah. jërëjëf ngay ni nga xamante ni tey mooy seen dëkkandoo yi nga leen di delloowaat dëkkandoo yi dama leen di ziar rek ndax moom diw baax na mbokk yaa ko wax te tey bu ma jaaxleen wala ma am benn jafe-jafe balaa suñuy mbokk ñëw samay dëkkandoo ñooy ñëw dëkkandoo nag jàmm ca gën te yéen nañ ma jàmm yéen naa lañ jàmm Mawlana Cheikh Ibrahima nag nee jàmm da am jàmm jàmm soof la nit ki boo ko yéenewul jàmm dana am jàmm te yow mi ko yéenewul jàmm doo am jàmm kon vaut mieux ñu yénente jàmm te samay dëkkandoo yénente nañ jàmm wax dëgg yàlla yénente nañ jàmm ñu ngay demalante ñu ngay ñëwlante yàlla nañ yàlla defal jàmm yéeni presse bi yëpp maa leen di ziar di leen bégee ndax kontaan trop ndax mobiliser presse sénégalaise yombul tey ma mobiliser leen du paas du dara gu ñu leen jox yéen a ñëw seen ñëw bopp rek ndax jàpp ci liggéey liggéey jumaa ji kontaan naa vraiment yàlla na yàlla fay yaa ngeen jëf. maa leen fay seen bu baax a baax a baax maa leen say leen sant di gërëm di nuyu bokk internet yi di bokk di nuyu waa diaspora bi di nuyu waa Sénégal te xam naa ne fi mu toll moom ñëpp ak ñu seetaan xam naa fu mu nekk nii ñëpp ñu seetaan ñu daje ci li nga xamante ni tey yaakaar naa mooy fi dajale ñëpp di inauguration bi nga xamante ni tey moo amoon fii ci Parcelles Assainies unité bi waaw loolu loolu loolu loolu suñu fierté la ñun ñun ñun ñun waa Parcelles suñu fierté la ñaa ñaa ñaa suñu fierté la parce que su ma ko déggoon ci leneen su ma ko déggoon ci leneen dama bett mais fi tàmbalee nii nii nii ñaa ni nit ñi xamaguñ ko bu baax quoi ñu ngi koy doog a xam mm-hmm. mais fi mu tàmbalee nii dafa daal xel quoi mm-hmm. waaw tay jii mënon né sama kër bop lay tabax wane ko amna na ci droit ah, bu ko neexoon né sama kër bop lay defar internet yi ñew mais jakk bi mu commencé dafa dal xel wa man jakk bi mu commencé dal na sama xel torop torop torop ci mom wa fank na lu bari ci ginaawam wa parce que nit ko gisi aduna rek amna gax-gax mais li ni fayna lepp lepp lepp lepp ci li ma la mën wax waaw waaw wax la wax la nag wax la waaw wax la loo xamante ne fay lepp lépp ci ginnaaw waaw waaw ki man mëna wax ci mom man naa wax ci mom lu bare bare bare bare bare parce que dama fekk debem tout debé difficile loolu la tuba wax parce que dama fekk debem mu nek ak man sama restaurant à 2009 2008 bobu ñaa nit ñi man ak mom ñoo yem nag man ak ñom dañoo yem ben voir tout dof dof lañ ko tek du dof man tel parce que fréquent fréquent dafa fréquenté sama restaurant la doon fanan ba fajar mu jël rapide ñibisi wala tata wala des fois ben boy yobale ko loolu dama luma fekk la temps yooyu boobu Wally Seck mi ngi tëgg ay soirée ay anniversaire am akapes xam nga kon loolu yàgg na boobu moom mi ngi jéem a dugg ci Pape Diouf ñu koy wax kase boo demee boo demee boo demee boo boo demee ay ay comment loolu école yi euh, fesco yi dañ koy xaar mooy bu immaculé mooy bu John Fénéral Crédit mooy bu Notre Dame ñaar dañ koy xaar bu ñëw du safe parce li ñaar di sol te dafay yàgg sol cher te nit ñi te yàlla xam du sàcc du trian dama ko xam du sàcc du trian gor pire la gor la daf c'est que moom moo bëggaloon boppam jamono jooju di ànd ak man fu man ne mu fekk ma fa ma koy jël di ko yóbbu ko sama benn paa paa boo xam ne mooy mooy mooy mooy papay papa Sow laa koy mën a wax mu ñu koy wax père ba ñu ñu ma ma fay ànd ak moom mu fay ànd ak moom mu jégg saa ñu dem di restaurant ba ni muy duggee ci Wally Seck moom dañu muy gor wax li ko Wally defal mais Wally tamit yàqu ci dara

parce que tamit li ko li lu nit ñi mënul gis ñaa ngi koy wane te ñaa tey ji bu ma neexee ne 2STV wala Sen TV wala TFM ëpp ñu ko ñu koy seetaan ci àdduna su ma neexee wax am naa droit wax ko que dama fekk ay vieux bi mu commencé 100 ba tey 1000 ñi koy seetaan boo leen tegoon amitié mu fees dell kon loolu liggéey la liggéey la du nekk loo xam ne lu facile la loolu nit liggéey na 30 ans amul loolu télé liggéey na 30 ans amul loolu wala fajiri ñi ko seetaan moo ëpp wal fajiri kañ la boobu ñun dañoo judd ñaa 84 la man tey la am 40 ans man tey te fekkaw ma ko ñii seetaan cinéma ñaa seetaan ñu wal ñu baal ma nag ñu baal ma du question ko dama leen wax mais dañuy témoigner quoi dañuy wax tey bisu wax la waaw ma koy sant di ko gërëm wax ji jarul muy bari parce que li ma war a wax li ma wax li ma xam ci moom bi mënu ma wax fii ma koy sant di ko gërëm bu baax a baax def na lu ko war doomu ndoy noor euh, njool fuuta alaaji abdoul aziz da bu baax bii ñaaxaruñ loo dëkk fi ci quartier bi di doomi Pikine di doomi doomi parcelle tabal taxawaay taxawaay bu rëy bii nga xam ne taxaw na ko ci diine te lu waaye def ci diine ak yàlla ab jaam nag mën tamat yàlla di manqué lépp loo def ci diine yàgg yàlla la te nit bu jëfee jëf ju baax dees koy weer ni am póot ndax lu baax daaraar te as gor ñëpp mën noo boole na wii noo day am mënta ñàkk waaye nag ku jëf ngir yàlla yàllaa lay fay kon sëriñ bi ñu ngi ñaan ci jéego yii yal na doon ngërëmal yàlla yal na doon sunu tawféex ñun ñëpp ci barkent bi nanu xam daal jataay bi jataayu diine rek la ñaa mi nga xam ne la moo tax ñëpp daje fi ak ci jëm yàlla yonent bi bi mu defee lu mu baax dafa noppi da see ndax moom yàlla rek tax nee jëfal na ku jar jëfal ku jëfal ku ku jar a jëfal nag bis bu la fayee nga xam ne fay na la liggéeyal yàlla nag yombul liggéeyal yàlla yombul de ndax boo xasee jóg bay liggéey yoonu yàlla nee na jëlal sa bopp nag sarax ko yàlla rek ndax bis bu la yàlla yu fay incha allah danañ xam ni nag Sénégal nag moom bala noo xam seen nit mu faatu nee nag mbir mi lu jar a bége la nee na ku jax ku gis nag lu jar a bég bégal rek. am na loo xam ne ku ci bégul dootoo bég ilaa yawmi diin walaay si Malick te jëfal yàlla nag fierté la mbégte la tiitar la te jullit bu nekk war naa tiitaroo loolu kon nag liggéeyal na yàlla yàlla ko yàlla fay jërëjëf ñu ngi ci woo ñëpp ñu jëful ci nag dimbali nga leen ndax nag ku yàlla bind bool na laa wërsëg waaye alal dafa jafe alal mooy li nga jëf si yàlla kon nag li nga jëf si yàlla yàlla gis na ko yonent bi gis nako gaay yu baax yi gis nañ ko yal na nu yàlla doole ci barke yonent bi ku la sayyiduna muhammad Warna jibde warna jibde noru naa wa noorun samsu wal khamari na ñep def ni ñu magal yonent yalla muhammad fala taqiso ibn abdillahi bil fudala ibn al kawakib yux fiya maru lil musawa khairu khalqu la man silatun ana ñu bëgg yonent yalla muhammad lo jann wara kulal wara haru samam maam sëñ bamba nee muhammad minori hi kula kulla xana ya yëgu ni lamp yi di tàkk nii mu ngi takke ci daraja yi sayyiduna muhammad samam maam sëñ bamba nee def len ni ñu magal borom bar yéen or ba ca madina minorin noorin kulla noorin saatiin bi sana nooru mun wa norun samsu wal xamari amin si malik allahumma amin si malik amin si malik amin